ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may fanaanug jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendalug jàmm di ko ñaan mu nangul ñu xéewal yum ñu xéewalal mooy xéewalu ibaadaat mooy xéewalu jaamu yàlla ya ñu jóge ko jëfandikoo waxtu su néew ci ginnaaw ba tax na mu ñuy wax ci la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéewal yi ma yokk ko bu ngeen sante xéewal yi ma daldi ko yokk anam bi nga xamante ne moo kawe suñu njort kon ba tax na ñu ngi naan alhamdulillahi ala kulli xaal allahuma laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ida radayta wa alhamdu bada rida ñu ngi koy ñaan mboolem xëytu cant yu kawe yi nga xamante ne moom buur yàlla tabaraka wa moo ko yeeyoo yan nañu yàlla boole ci jaam yakoy sant saasu ne ci xéewal yi yam leen di xéewalal mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xanaa di leen fàttali ne rekk yéen a ngi fàttaliku ay fan yu néew ci ginnaaw ñu ngi doon waajalal la nga xamante ne mooy lañ doon fas yéene digmal buur yàlla tabaraka wa taala ñu ñu fekke ko tal ko ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim ñu defee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye yàlla ñu ñu génn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin mu doon jongante député ya nga xamante ne moo nekkoon actualité ci penc bi moom la penc bi doon waxtaane imaam yeeg xotabaawu yeeg asaatiza yeeg saxaafi yeeg journaliste yi ñu di ko waxtaane di géem a sensibiliser nit ñi ci nañ ko war a defee ci dal ak ci teey ak ci tekaral ak ci jàmm waaye buur yàlla tabaraka wa taala nangu na ñaanu ñenn ci ña doon ñaan moo xam jullit bi la moo xam ka nekk ci jàngu bila la ñëpp a ngi doon tàllal loxo ñaan yàlla yal nañu ci dugg ci jàmm ñu defee ko ci jàmm ñu génn ci ci jàmm kon ndegem buur yàlla nangu na suñu ñaan woowu kon duñu deñ di ko sant mu may ñu jàmm jooju kontiné ñañu tàbb fal leen yubbante leen ci pencum ndaw réew mi nañ leen bokk ba ñu di leen ñaanal yàlla yan na leen yàlla woyofal yan ba yàlla gàll yan doon yan bu woyof yan leen yàlla kattanal yan leen yàlla dooleel yan leen yàlla faral yan leen yàlla may xel bu rafet ak yéene bu sel yaa ñuy doxal la tax askan bi yóbbante leen fal ñu teewal leen ci pincum ndaw réew mi amin ya rabbal alamin xanaa di fàttali ne rek ñi nga xamante ne ñoom la buur yàlla tànn fal leen ñu nekkal askan bi ci bere boobee bi nag ndegem buur yàlla daf ñoo nattoo ñu nekk fi di fàttalanteeg mbokk yi waaye di fàttalanteeg mbokku auditeurs yi rawatina ña nga xamante ne ñoom la yóbbanti ci pencum ndaw réew mi aaya ba nekk ci suratul ali imran buur bi tabaraka wa di wax yonent bi ci suñu téere bu mag bi di alquranul karim ne yow sama ndaw yow sama yonenti nel sama jaami ne yàlla mooy buur bi nga xamante ne mooy joxe nguur ku ko soob waaye mooy buur bi nga xamante ne mooy rocc nguur ci ku ko soob waaye mooy buur bi nga xamante ne mooy yëkkati ku ko soob bi léegi mooy buur bi nga xamante ne mooy wàccee ku ko soob ndax ci tërilinam ak ci moomelam la mboolem yiw yi nekk te mooy buur bi nga xamante ne mooy ki tëlewul dara lépp la mën subhaanahu wa mu bëgg woon doomu aadama yi ne bokk na ci kattanam yooyu mu nekkee moom yàlla tabaraka wa mu ne ñu bokk ci kattanam bokk na ci moomeelam kilima bu ñu naan guddi moo koy rocc génne ko ci bëccëg waaye mooy rocc bëccëg kilimaam bi nga xamante ne ca la jant bi di fenk mooy rocc bëccëg boobu ci guddi walla mooy ki am kattan ba toll ni mooy roof guddi ci bëccëg waaye ba léegi bokk na ci kattanam moom yàlla buur bi tabaraka wa mooy roof kilimaam bañ naan bëccëg ci guddi waaye bokk na ci kattanam ba léegi mooy génnee la dund ci lu dee waaye mooy génnee la dee ci lu dundu ba léegi bokk na ci kattanam mu di ñu wan ne mooy wërsëgal képp ku ko soob ci lum du àttee di xool melokaanu jëmm jooju walla jëmm jooju ni mu mel walla mu di si àttee la nga xamante ne mooy lenn la tax mu di ko wërsëgal kon buur yàlla tabaaraka wa taala ginnaaw bu mu waxee yóbbante bi ci yonenteem ba nga xamante ne moom la jox alquranul karim jullit yi di ko jàng ci suratul ali imran aaya vingt cinq bi aaya vingt six bi aaya vingt nga ñëw fekk ko mu daal di ko jeexale ci aaya vingt sept moo ne aaya bi mooy audu billahi min alsheytaani arrajim qul illahumma malika almulk tu'til mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudillu man tashaa'u biyadika alxayr innaka ala kulli shay'in qadir tuuliju llayla fi nnahaar wa tuuliju nnahaara fi lleyl wa tuxriju alxaya min almayit wa tuxriju almayita min alxay wa tarzuqu man tachaau bi geyri hisaab mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ña yàlla dogal ñu teewal askan wi ci pencum ndaw réew mi ñu ngi leen di fàttali ne ci ñañu daganal seeni baat ba ñu jox leen seeni xob keroog bañ leen doon tànn ci askan bi mu doon bés bi nga xamante ne bésu tànneef la askan bi wékk seen yaakaar ci ñoom buur yàlla di leen wax ne askan ba def sabab ba dëppook sama tànneef kon yow mi teewal askan bi bërëb boobe nanga xam ne yàlla moo la tànn ci askan yéen la jox seeni baat ngir nga féetee leen béréb boobee xamal ne tànneef bi de yàlla la tànn ci askan ba nga nekk di dund moo tax buur yàlla ne qulillahumma nel sama jaami buur bi di yàlla maalikal mulki mooy buuru buur ñi tutil mulka mooy joxe nguur man tashaa'u ki ko soob wa tanziul mulka mooy rocc nguur mim man tashaa'u cikk ko soob wa tuizzu man tashaau muy yëkkati ki ko soob wa tudillu man tashaau mooy wàccee ki ko soob bi yaddikal xayr ci loxom la mboolem xëytu yiw yam la limal ni ci moomelu yàlla lañu nekk nekkul ci moomelu kenn bur yàlla ne innaka ala kulli shay'in qadir ne leen buur yàlla de moo fi nekk di man lépp amul dara lu mu télé amul dara lu yàlla télé subhaanahu wa taala mu bëgg a woon doomu aadama yi ni bokk na ci ci kattan yamu nekke nekkee moom yàlla suñu borom tabaraka wa mu ne ñu kilima ba ñu naan guddi moo koy roof di ko rocci ci bëccëg moo tax mu ne tuuliju layla fi nahaar mooy rocci walla di dugalante guddi ci bëccëg wa tuuliju nahaara fi leyl mooy dugal di roof di rocci guddi ci bëccëg mooy roof guddi ci bëccëg mu di ko fa rocci waaye mooy dugal bëccëg ci guddi mu di ko fa rocci waaw bëccëg ak guddi nu ñuy dugalante guddi bëccëg nu ñuy dugalante kenn ku nekk di génn doo taq sa morom loolu kattan bi yàlla rek a ko man du scientifique du buxaaba du savant du intellectuel du kenn ci nitu àddina ya ñu yaakaar ne ñoo yore grande puissance ak seeni grande puissance yi ñu leen di woowee yii moom tële nañ ko munuñu ko ndax du seen liggéey du seen domaine kon buuri yàlla ma ne innaka ala kulli shay'in qadir mooy ki téliwul dara ba dara booloo jeex subhaanahu wa taala mu ne bi yadikal xayr ci moome lam la mboolem yiw yi nekk innaka ala kulli shay'in qadir ndax moom yàlla mooy buur bi man lépp amul dara lu mu tële subhaanahu wa bokk na ci kàttanam yooyu mu man tuuliju leyla fi nahaar mooy rocci guddi ci bëccëg waaye moo koy dugal ci bëccëg tamit wa tuulijul wa tuulijul nahaara fi leyl mooy rocci bëccëg ci guddi te mooy dugal bëccëg ci guddi tamit système guddeeg bëccëg nañuy wécci wante ci domaine yàlla la buur yàlla subuñu borom subhaanahu wa taala mooy ki ko féete mooy ki ko man moo tax mu di la wax ne kàttan bi ni mel moom yàlla moo ko yore subhaanahu wa taala bokk na ci kàttanam bi léegi moom buur yàlla mu di wax ak doomu aadama bi ne ko bokk na ci sama man-man wa tuxrijul mayyita aw wa tuxrijul xayyi min al mayyit mooy génne lu dund ci lu dee mooy génne la nga xamante ne mooy lu dund ci lu dee mooy génne doomu aadama bay dund ci ndox bu dee bi nga xamante ne ku mu taq nga raxasu ku mu taq nga sangu ci ku mu taq sa yére nga fóot ko comme ndegem ndox bu loof boobu yàlla di ci bind ci kattanam doomu aadama bay dundu kon muy dund ci ndox bu loof boo xamante ne dina ci bind mbindaafoon bay dund moo xam njanaaw la moo xam mala la moo xam doomu aadama la wa tuxrijul xayya min mayit moo am kattan bu toll ni mooy génnee lu dund ci lu dee wa tuxrijul mayita min al xay bi léegi mooy génnee mooy créer lu dund ci lu dee ci kattanam la loolu tamit nekk buur yàlla mu ngi nii di ñu baaxee wax ne wa tarzuqu man tashaa'u muy wërsëgal ka soob bi xayri hisaab ci lu dul muy xool ci anamu kooke na mu mel wala mu di ko àtte ci lenn na mu nekke subhaanahu wa taala kon ñuy yóbbanti yóbbal ba xamante ne dinañ ko jagleel suñu ndaw yañu ñun toogal ci pencum ndaw réew mi nañu bàyyi xel ne askan yaleen yóbbante ci birab boobee mu tombek tànneefu yàlla baleen yàlla tànn ci askan bi nañu xam ne yàlla mooy buur bay joxe nguur lañu nekkee nii am na si ñi ko yàlla jëlee jox leen ko àpp lañ fi am su ko defee yàlla jëlee ko si ñoom it jox ko ñeneen ñooñu tamit am fi ab ab ab diir yàlla jëlee ko si ñooñu jox ko ñeneen haakaza buur yàlla di ñu wax ci alquran wa tilka wa tilka al ayam nu daawiluha bayna annaas nii la fanu yàlla yi mel ci dundu doomu aadama bi buur yàlla ne noonu laa koy wante ci diggante doomu aadama yi léegi-léegi ma ay groupe ñu moomee vent ñu doxal ba jëmm jamono ma jëlee ko ci ñoom créer yeneen groupe ñoom it ñu moomee vent maanaam ñu aye su ko defee ñoom it doxal bi jëmm jamono ma jëlee ko ci ñoom jox ko ñeneen ñoom it aye kon ndegem yenn yàlla dogal ngeen aye si seen aye la ñu nekk di waxtaan ak yéen xam leen ne diine ba ñuy dund kat ak diinu nasiha diine bi kat diine laayante biir la ba tax na ñu leen di laaye biir ci aaya bi ñu ngi leen di laaye biir ci saar bi walla ci melokaan ba yàlla ne qulillahumma malikal mulk ne leen yàlla mooy buuru buur ñi tuutil mulka man tashaa'u moy joxe nguur ki ko soob wa tanziul mulka mimman tashaau mooy nguur ci ku ko soob wa tuidu man tashaau mooy yëkkati ko soob wa tudillu man tashaau mooy wàccee ko soob bi yeddikal xeyr ci moomelam la mboolem yiw yi nekk innaka ala kulli cheyin qadir mooy buur bi man lépp amul dara lu mu tële bokk na ci kattanam yamu joxoñ ci aaya bi tuuliju leyla fi nahaar mooy rocc guddi ci bëccëg di ko dugal wa tuuliju nahaara fi leyl mooy rocci bëccëg ci guddi mu di ko fa dugalaat wa tuxrijul xayya min al mayit mooy kiy génnee lu dee ci lu dund waaye wa tuxrijul mayita min al xay mooy génnee lu dund ci lu dee wa tarzuqu man tashaa'u mooy wërsëgal ki ko bi xayri hisaab ci lu mu di ko àttee ci melokaanam wala ci taxawaayam wala ci mbindanam subhaanahu wa taala ba na mbokk yi Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bam leen di amal ci waxtu wi ñu daal di leen dikkil len na li nga xamante ne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 diine bi diiney ti biir la ba tax na ñu nit ñu leen di laahe biir ci waxtaanu fajar bay jaar ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu bi ñu di leen laaye biir xadiisu abi saidin al xudri radiallahu anhu sahaabi bi di abi said al xudri radiallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm nee na naka suñ yonent bi di ar rasulul mustapha alayhi salaatu wa azka taslima daf ñu baaxee nañu man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi képp ku gis si pénc bi li nga xamante ne ñaawteef la lu ñu sip la la jagut la na ko géema jagal ci loxom yonent bi nee na fa in yastati bu ko mënuta jagal ak loxom fa bi lisaanihi na ko jagal ak làmmiñam fa in lam yastati bu dee munu koo jagal ak làmmiñam fa bi qalbihi na ko métitlu ci biir xolam waaye yonent bi nee na métitlu ko ci sa biir xol nag wa daalika adaful iman loolu mooy ngëm yàlla bu gën a niiw rawaahu muslim muslim moo solo xadis bi mbokk yi ñu taxaw tuuti géem a andi commentaire bu ndaw ay taaliqaat ci xadis ba ñu yonentu bi baaxee ci la abi saidin al xudri yi génnee mu doon xadisu inkaar yonentu bi salaa sallam nee na yéen député yi yéen député ya dem assemblée nationale yéen député yi askan yi fal ngir ngeen teewal leen assemblée nationale ngelawaay sallallahu alayhi wa ne képp ku gis ci pénc bi loo xamante ne ah bu ganesee dina lor ñamu ganesi képp ku gis loo xamante ne bu ganesee waa pénc bi dina leen lor ci seeni nekkin yonent bi nee na nanga ko géem a ak sa loxo na nga fexe ba mu jàkk ci sa loxo ñu ne la war a jagal pénc bi ñu ci am kattan ak doole mooy autorité yi nga xamante ne ñoo yore suñu force de sécurité yi ñu ne kon falu xayiruhu bi yadihi la ñu war a soppi ak suñu loxo ñu ne loolu umaraaw yi ñoo ko féete mooy autorité yi ñoo ko war a taxawe kon député ba gis loo xamante ne bu ñëwee dugg ci askan bi dina nasaxal askan bi moo xam lu ñuy naan la moo xam lu ñuy muqi la moo xam lu ñuy fonn la taxaw temm waaw bañ a la tax loolu di wara a dugg ci askan bi bañ a la tax mu wara dugg ci askan bi nanga taxawu tem ak noo ko munee ba loolu bañ dugg ci askan bi ak privilège yañ la tegal ngir mu dugg ci askan bi nanga nga lànk bi tëdd ci naaj bi ngir mu bañ dugg ci askan bi autorité yi bokk na ci seeni taxawaay ñoomit ñu teg benn xadd benn tëririn bi nga xamante ne dañ naan képp ku ñu gis nga nekk nekkin bu juunoo ak nekkin ba nit ki war a nekkee nekkin ju mujj ayib ci askan bi dinañ la daan dinañ la teg daan wi ni moo tax ñu ne bi yadihi loolu autorité yi ñoo ko war a mën a féete mooy forse de sécurité yi ñoo war a renforcer la nga xamante ne mooy inkaar ba ñu war a dindi ak seeni loxo ñu ne fa illam yastati fa bi ki ko mënut a génne sa loxo te autorités yi ñoo ci war a mën a taxaw ñu ne kon na wax ba mu deñ ñu ne fa bi lisaanihi imaam yi boroom xam-xam yi ustaas yi journaliste yi ñoo ko war a mën a reyteet wax ko ba mu deñ kon yow ba léegi député ba nekkal askan bi ci assemblée nationale kon ñaareelu commentaire bi am nga ci wàll ndax danga nga war a wax ak sa làmmiñ ngir loolu mu deñ walla da nga war a wax ak sa làmmiñ be mu bañ a dugg ci askan bi walla da nga wax ba loolu ñu soppi ko def ko neneen lu wuuteeg na mu nekkee ngir askan bi war ko war a mën a consommer kon ndegam wax moo ko war a soppi ba askan bi war ko war a mën a consommer kon waxal ba mu soppeeku su ko defee askan bi war ko mën a sopp consommer bu dee lenn loo xamante ne askan bi mënuñu koo consommer xatta boo waxee sax mënut a soppeeku kon yow da nga war a wax ba loolu deñ ñu jëlee ko fi andi leneen loo xamante ne moo gën la fi nekk ñu ne bu dee loolu mënut a yemb kon na nga ko méttitlu sa xol na ko méttitlu ci sa biiru xol waaw comme amuloo possibilité dindi ko ak sa loxo amuloo possibilité dindi ko ak sa làmmiñ kon na doon mbir woo xamante ne sa xol dina ko méttitlu bul manifester ne ànd nga ci bul manifester ne neex na la bulu manifester ne lii war naa mën a nekk yow kañ bu dee da ngay dem bay manifester sa manifestation bi lu mu war a mën a doon ana lu mu war a doon mooy lii di ànduma ci dama ci mënul dara rekk waaye ànduma ci waaw ku gis ngay wax dina xam ne lii àndoo ci ku gis sa xar kanam ci mbir boobee dina xam ne lii nga nekkee daal àndoo ci waaw ku gis la nga bind dina xam ne lii ñu nekkee nii àndoo ci su ko defee nga miitutlu ko ci sa biir xol waaye nga di ko manifester tamit ne lii nekk ci pénc bi ne xuus ne xasar ah dama ci mënul dara rek waaye ànduma ci kon ndegem lii moo war a nekk taxawaayu député yeeg lenn ci askan wi ñambaax ñor kon nañ leen bokk jàppale ñañu yóbbante assemblée national ci reeteet ci information ci la nga xamante ne mooy bu ñu xamee ni lii nekk ci penc bi de <clears throat> buñ ko yóbboo assemblée nationale dina amal njëriñ bi askan wala li nekk si penc bi de buñ ko yóbboo assemblée nationale buñ ko waree mane écraser dindi ko bu dindi ko wala ñu soppi ko ba askan bi war ko war a mën a consommer ci anam bu gën a mucc ay mooy la leen gënal kay taxawee taxawaay wi ndax loolu la yonent yàlla yuusuf alayhi salaam waxoon keroog ba doon discuter buur bi mu ne buur ne ij'aluni ala xadaa'inil ard waaw def leen ma ma nekk ministre des finance jox leen ma trésor inni xafizun alim man de ki ko mun a wattu laa ko mun a saytu laa waaye ki ko xam laa tamit ndax géeju naa si lool kon yow député ba nekkal askan bi ci assemblée nationale mooy ci pincum ndaw réew mi xamal ñan nga fa nekkal ak la tax nga nekk fa privilège ak euh, lépp luy poñutum àddina bu mu fëq sa bët bu mu la yóbbaale ba nga jaay sa askan ngay bàyyi la leen di lor lay lor askan beeg xale yeeg jigéen yeeg tuut tànk yi muy dugg ci seen doxalinu dund moo xam ci njàng bi la moo xam ci daara yi la moo xam ci lañuy ñuy luy dem ci biir yi la wala lañuy lekk wala lañuy naan su ko defee ngeen taxawee ñu taxawaay bi yoo xamante ne moo tax ñu wóolu leen bañ leen dénk suñu xob ngir ngeen féete ñu la nga xamante ne fa lañ leen yaakaare ngir ngeen féete fa ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yenn leen yàlla woyofal yen bi amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa mu may ñu dégg ak topp ndax ñuy joxe xibaar ñu ngi ni taxaw ñu fàccee ne leen jébbal béréb bi saa ilina mawla jalla wa ala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 baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allaha lii wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu